man sama mbir si seet laa ko tënk. Mhm. bis ba Modou di bëri. Mhm. bu ma neexoon wax jaam ñi ne leen Modou Lo gi ñu nii Modou dañ kaa jékku si wàllum gàllaaj moom Modou Lo te bu bëree tamit dañ koy daan. bu bëree dañ koy daan. dañ koy daan waaw léelu kay fii laa ko waxee moom. ma ne booy ñaar dafa jékku Modou si wàllum gàllaaj da ko jékku bu baax. da kaa jékku bu baax baax te Modou Lo bu bëree dañ koy daan. Mhm. da kaa si wàllum gàllaaj bu bëree da koy daan incha allah rabbi jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñi euh, moom ci actualité li gën a tax ñu def émission gis ne combat Modou Lo ak Boy xam ne jot na cee xew yu bëree bëri yu ñu war a leeralal dinañ waxtaan ak moom ci liggéey bu am solo bi mu liggéey parce que ñu bëri xam nañ ne Serigne Mourtada ba muy gën a nekk xale lépp lu mas a wax nit ca daara ja daawul dañ loolu moom yaakaar naa ñu bëree bëri ci diwaan Touba xam nañ ko kon dinañ waxtaan ak moom ci lu bëree bëree bëri dañ koy bàyyam ne yooñu konti waxtaan bi Serigne Mourtada ñu ngi lay ziar ausbillahi min seytaan rajimi bismillahi rahmaani rahim waxab bi xaqi baa il basmala waschini wal mimi kamala waxab lanaa bi baahi fi daarayni maa yadfaun haarayni wa naarayni asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi siyaar ñëpp tey baal xaq ñëpp tey baal xaq ñëpp tey ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te wér général ñu ngi am na solo trop nuyo bi fi ñuy commencé mooy gis nañ ne am na combat boo xamante ni askan bi ñu ngi koy xaar euh, temps yi paas nag génn nga am nga loo waxoon ci diggante Tapha Tine ak euh, Eumeu Sène am nga loo waxaatoon ci Siteu ak Lac de Guiers 2 waxoon nga ne combat bu combat bi euh, du am jël wala sax combat bi mën na soof ci fin bi waaye gis nañ ni jël amu ci fi ñuy commencé mooy gis nañ ne Boy Niang ak Modou lu war nañoo jàkkaarloo ku xam Boy ñaa xam ne keroog ci signature bi dafa mel lu mer naka nga gisee seen signature bi mu mujjee def. en général alhamdulilah signature boobu de daanaka maa ngi doon wax ne bëre bi. Mhm. Eh, jamono ji ñu toll ni Modou Lo dañ kaa jékku si wàllum gàllaaj moom Modou Lo moom Modou te bu bëree tamit dañ koy daan. bu bëree dañ koy daan. dañ koy daan waaw léelu kay fii laa ko waxee moom. bu wuti jiwut gàllaaj mhm. ah su wuti jiwut gàllaaj bu jiwut gàllaaj mhm. jug si boppam balaa bëree ba su bëree dañ koy daan. kon daal li gën a wóor mooy na jëm uti gàllaaj li gën a wóor mooy mu génn dem wuti ji gàllaaj bi mooy deux fois nga wax ko da koy seet ba gis ko wala. man sama lépp si seet la tënku na génn dem wuti ji gàllaaj fu nga ko mën a wuti jee su ko defut bu bëree dañ koy daan. mais dañoo gis ne Modou bi passé moom indi wala gàllaaj ndoxu sam-sam wala sax ndox mu leer nañ la doon xëppoo. waaw xam loolu général. Uh-huh. avant bëri bi di commencé wax naa kay daan na muy lépp. Uh-huh. man sama mbir si seet laa tënk. Uh-huh. bis ba Modou Lo di bëri. bu ma neexoon wax jaam ñi ne leen Modou Lo buy ñëw tey du takk dara te day daan kii. Mhm. waaye dama leen kaa seet wax ne ne mu loolu dina ko duma te dina ko daan. Mhm. vidéo yooyu ku dem YouTube ak fu mu mën a dem di nga ko fekk. man sama lépp si seetlu tam ko. lan moo tax parfois boo waxee rek ñu bëri di la di tiit parce que sa wax dafay nekk wax ju rëy ci ñoom. waaw loolu yàlla suñu borom moo koy def man damaa doon nit koo xam ne ku ma di seetloo wala dara am na loo xam ne bu fekkee dafa nekk si yow. Mhm. ak lu mën a doon bul ma seetloo ndax man boo ma boo tëddoon guddi yeewu xëy suba woo ma di ma seetloo. guddi gi li nga fanaanoo bu dee lu bon la wala nga doon njaaloog jabar jàmbur lépp dama la koy wax même kuy njaaloog jabar jàmbur la wooye di ko wax ne nga doon njaaloog jabar jàmbur soo njaaloog jabar jàmbur xëy woo ma bu koo xam ne ku jub la moo ma mën a ñaanloo bu fekkee bëggut ku ko xamal lu bon waaye bu dee koo xam ne day def leen ma woowee di ma seetloo dama koy seetal waxu dem si guddi li mu doon def ak lépp ah mais li nga wax doy na waar de loolu kay général euh, ñi ma dëkkal xam nañ ci dara ñi ma dëkkal xam nañ si dara boo may seetloo moom booboo nga doon ko jub wala nga wala lenn la ngay la ngay bëgg ku la ko seetal ñu wax la ka ñàkk la kaa ba ñu wax nga yemale waaye boo ma seetloo moom na nga fanaane guddi sax na la koy wax. Euh, am na solo trop euh, na ne combat bi léegi mu ñëw am loo ci wax dinaa ñëwaat ak yow ci combat bi parce que da nga wax nga ne Modou Lo dañ koy dee amul galaaj bi mu war a am léegi ci ñëwaat ak yow mais balaa may continuer damaa bëgg ñu waxtaan tuuti ginnaaw wax nga seet seet sax mën naan yar ñu ci yàgg parce que ñu bëree bëri xam sa jamono gone mais mbir noob noob nekk loo xam te jigéen ñi soxla nañ ko góor ñi soxla na ko mais nit ku def noob bu normaal moo jafe. waaw alhamdulilah général noob moom chaque jour dama koy wax. Mhm. Euh, lii di noob bu ma gisee ku ma ko dàq si réew mi man ma bàyyi li ma nekk nii dem seet leneen. Mhm. wallaahi lancim yi man noob si 24 heures laa koy def. ci 24 heures. si 24 heures laa koy def bu jàpput loo ma joxoon lu nekk boo dikkee ma tegale si lu toll noonu may la ko. maanaam sama noob dafa sama noob si 24 heures lay dox. Mm-hmm. amul ay demal ba bis sàngam vingt quatre heures laa koy def bu jàpput boo dikkee langa nga ma joxoon ma tegal la toonoon may la ko. daal da nga ko ba mu ëpp daal. sama nopp kay Sénégal ku ma ko dàq ma bàyyi ko laa wax. Eh, am na solo trop seet gi wax nga ci wax nga ci noob mais am na leneen loo xam te ne lu am am solo la ci mbirum galaaj la ñu war a waxtaan dañoo gis mbir yu bëree bëri léegi gëmatuñ galaaj ndax Modou am na ñoo xam ne tey boo leen joxee xaalis duñ dem def ci galaaj ndax li jig Modou ci loolu jig na ci ñëpp. waaw alhamdulilah général li jig Modou Lo jigul ñooñu. Mhm. Modou doonu sëriñ yi ñoo koy ñaanal de. doomu sëriñ si. déedéet li jig Modou si wàllum gàllaaj mhm. di bëre bañ a takk gàllaj sëriñ bu ko def in la mbër mu ko def ku ne. sàllaax moom boo bëree des na la du mu du muy met dan la Modou Lo bu ko euh, mbër di toppandoo si loolu muy def loolu muy def mbir mu rëy moo si ne. Mhm. Euh, am na solo trop tey boo doon xool moo diggante Modou Lo ak Boy mu gën a taxaw. mbirum galaaj koo ñuy wax. jamono gi ñu toll nii booy ñaar dafa jékku Modou Lo si wàllum galaaj. da ko jékku bu baax. da kaa jékku bu baax a baax tam Modou Lo bu bëree dañ koy daan. da kaa jékku si wàllum galaaj. te bu bëree da koy daan incha allah rabbi. Eh, am na solo trop eh, dinañ ko tekkeew tuuti ci mbirum faj gis nañ ne ñu bëree bëri eh, danuy am rab. rab nekk lu leen sonal parce que combat bi naa ci ñëwaat am na leen lu ci des mais mbirum rab dafa nekk lu jaaxal ñu bëree bëri rab naka lay manifesté woo ci doomu aadama ak su la jàppee lan lay def ak nan koy dindee waaw Sénégal alhamdulilah dafa am ñoo xam ne wàllum rab gi ñu yor dafa am si euh, boo ko seetee da koy seet te boo ko seetee bu nag dafa am si looy tënk ak ñoom. Mm-hmm. gis naa sëriñ yoo xam ne bu ñu la seetalee. Mm-hmm. dañ naan la rayal nangam wala joxeel nangam am na ñoo xam ne kenn du leen rayal. Ah am na ñoo xam ne kenn du leen tuura am na ñoo xam ne kenn du leen rayal am na ñoo xam ne dañ leen di saraxel am na ñoo xam ne nga ray leen am ñoo xam ne. nga nga nga nga nga indi ko ñu am ñu am ñu am lu ñu ci def. Mhm. waaye du ñëpp la ñuy rayal. du ñëpp la ñuy rayal. du ñëpp la ñuy rayal loolu nag damay gis sëriñ su bëri di ko def. Mhm. waaye nañ moytu loolu baax a baax. Mhm. Euh, am na solo trop bu ñu jógee ci lool dañuy ñëw euh, ci mbirum papier papier nekk loo xam te ne ñu bëree bëri dañ koy soxla bëgg a tukki génn réew mi mais pour ñu am papier dafay jafe lool mbirum papier yan façon secret nga ci yor. waaw général alhamdulilah papier moom la ma si waxoon. sama émission ba bale jaar rek laa ci waxaat daanaka ku ma indil sa passeport ñetti fan daa koy téye def si li ma si def soo demee dañ lay may visa si force. Mhm. wallaahi ñetti fan daay téye sa passeport def sa la ma si def. Mhm. su ma la ko joxee boo demee dañ lay may visa dañ lay may visa visa si force visa Amérique. 10 ans sax mën ko fa am wallaahi naa Euh, am na solo trop euh, ba tey dañuy continuer ak yow ci mbirum faj dañuy gis jigéen ñu bëree bëri pour ñu am jëkkër dafay jafe lool dañuy wër fu nekk ñu bëri nag euh, nee na bu ñëwee ci yow mën nga leen cee jàppale ci lu gaaw parce que bii ba ngay nekk daara yooyu da nga ko def di ko fawantoo. waaw alhamdulilah général wàllum ñi nga xam ne dañoo bëgg jëkkër mu tëleen wala ñi nga xam ne dañoo bëgg soxna mu tëleen dafa am rawaxaan yoo xam ne ñoo koy def. Hmm. loolu incha allahu rabbi ku la ko dindil. sangat gi ma la joxe juróom-ñaari fan doo nga koy sangoo. juróom-ñaari fan rek. juróom-ñaari fan doo toog un mois yu mat te ñëwuñ ñaan la bu dee góor la du toog juróom-ñaari fan yoo xam ne te muy ñu ko soxla incha allah rabbi. Euh, am na soxla trop am na solo trop trop macha allah euh, ba tey dañuy ñëwaat ak yow ci li xamante nii mooy faral di am mu nekk mbirum xarafa foofa fan yi passé defoon nga benn émission nga yor ay ndombo yu noir ndombo yu ñuul ndombo yi ci lan lay dox. waaw alhamdulilah Sénégal ndomb yooyu daanaka sa émission bi ba ma ko jàllee ba ba ba dem ba ma xëyee lu tolloog cent lañ si defaroon. Mhm. amul ñaari fan yëpp jeex. yëpp jeex moo tax indiwaatoo ko tey. indiwuma ko tey li ma indi ab béjjën la. Mhm. te damaa bëgg sax nga jox ma ko. macha allah. ma nekk si saak bi. mu nekk ci la lay dox béjjën boobu. béjjën bi. Mhm. béjjën bi am na ku nekk si état bi koo xam ne bu ma la ko waxoon nga xam ko. waaw béjjën bi. koo xam ne si état bi lay yëngu. Mhm. su ma la ko waxee nga xam ko. Mhm. maa ko samp te ku ko laal day faatu te yor na ay milliards. yow yaa ko samp. barki démb rek seet si na ma. Mhm. jox na ma loo xam ne du ma ko wax kenn. gars yi li ñuy xëccoo ne ay visa ay lii naan jox na ma si yoo xam ne ba ma ko joxee kenn xamul kanja man maa bëgg dem fenn rek. Euh, am na torop trop euh, ba tey dañuy ko nekk yow euh, parce que ku wax lii di nga wax mbirum faj mbirum émorite ndoxum si di ballonnement am na ñu naka nga ci faje wala naka nga ci jëflanteeg askan bi. waaw alhamdulilah général loolu moom chaque jour tamit ma wax njaareem ku fa ñëw ba ma sangal la si sangat yi nga xam ne moom laay sangatee. Mhm. incha allahu rabbi lépp lu waay nekkoon si yaram yaramam. Mhm. day raxasu ba set wicc wicc wicc wicc. Mhm. ñetti fan dong boo dikkee ba ma sangat la fa. lépp lu nekkoon sa yaram nga di ko yëg muy émurite ak lu mën a doon. day dañ ko set wicc. day am bésat wit. day am bésat wit. ndax cat day jàpp doomu aadama loolu dëgg-dëgg am na. cat day jàpp doomu aadama ba ci biir bàmmeel. ba ci biir bàmmeel. waaw lu ñu war a am lu nekk bu foosee cat la dañuy déggalante nit mu leen war lu lépp cat lay doon. cat cat lay doon waaw. Mm-hmm. nit parfois am na ci bërëb liggéeyukaayam jëkk saa yi liggéey bi commencé yàqu di dellu ginnaaw ba mu mujjee daanu loolu lan moo koy faral di def. waaw mooy li ma rek am na loo xam ne cat la te tamit nit ñi duñ bàyyi xel bala nga kaa ubbi war ngaa mën a xool ba xam foofu jig na la wala jigu la. yëpp da nga xool des na nga xool ba xam place bi fa mu nekk baax na wala baaxut. Mhm. waaye tey rek am na soxna soxna bi ma see woo di wax ba mu ne ma nekk mu ne moom mu ngi marché asalem man ne ko foofu avant avant nga fay lii ba xool nga ko mënuma xooluma ko ma ne ko yow danga nga waroon xool bi ma ko xoolee dama kaa xamal ne ko carrément fi nga nekk nii baaxut. Mhm. te daanaka defoon na si lu toll ak 3 millions ba 4 millions jamono ji ñu nii dana dafay jóge ndax moom nee na lu ma ko wax rek lay def waaye man lijjanti ma loolu man daanaka li may xool mooy la ma jëflanteek moom ak si wàllum seet ba gis naa xam ne moo koy gàllankoor moo ko ko. Mm-hmm. waaw sa place yi tamit loolu nit ñi dañ koy bàyyi xel bu baax a baax xam ne place ba nga si dugg da ngaa war a seet. Eh, am na solo trop place ba nga cee dugg da war a seet waaye nag dañuy waxtaan ci mbirum bayra ak samp doomu aadama mu nekk lu am solo. général béjjën bi ku bëgg a samp si àdduna yor ay milliards. wallahi alazimi boo dikkee ma samp la te kenn du la te am xaalis tax ku la laal day faatu xam nga fan yii ñëw naa fi na la Casamance bu yàgg bu yàggul laa fi jóge mm-hmm. indi fi ay ndomba yu bëri yoo xam ne si saag laa ko defoon. Mm-hmm. du ma doomi adama kenn nag. Mm-hmm. waaye ku bëgg ma samp la nga yor ay milliards. dikkal si man. bu dikkee nga samp ko. bu dikkee ma samp ko te kenn dootu ko bi euh, am na soo trop euh, ñu gis ne Sénégal actuellement euh, liggéeyante bi bëri na yàqante bëri na ñu gis ki ñuy wax Gris Bordeaux ñu koy tuumaan mbirum parfum ba nga déggee lu mel noonu naan Gris Bordeaux dafa sàcc Gris Bordeaux di ko wax yoo xam te nii ku ne xam na ne Gris Bordeaux toog ci ay millions ndax dina mën a sàcc ay parfum lu mu la def. alhamdulilah général loolu barki démb laa dégg am sama benn xale si gone yi di ma wan vidéo ma ne ko lii de yaakaar naa ay caaxaan ndax Gris Bordeaux mi ngi toog si ay millions. Mm-hmm. kon jàpp naa ne yii doyewu ko dara xam nga Sénégal tamit moo doon loo xam ne tey jii boo yoroon place muy dox sax. Mm-hmm. ñu la bëgg a fakkatal wala yu demee noonu. waaye daal li may wax moom mooy képp ku mën a jug sa bopp jugal sa bopp wàññiwul dara. Mm-hmm. am na solo trop ku bëgg a sa bopp mën nga teel a jóg sa bopp parce que balaa ñu lay faagaagal korte am na. korte. waaw ah kay lu am la man dama koy def. korte bu nit bu ma tooñee bu ma neexee korte ko. <laughs> mais kott euh, ndax faj ko yomb na. dama koy faj man. Hmm, ba mu wér. barki Cheikhul Khadim dama koy faj. billaahi. bu la liggéeyee aussi liggéey bi mën nga ko dindi. ñay ñëw suñ ko sa sama bërëb ba nekk njaareem di fa am ñetti fan. Hmm. xam nga toog nii di wax rek dafa neex nit ñi mën nañ laa bañ a gëm. Hmm. waaye man damay wax ne sexuel man benn doomu aadama jarul may fen du kenn nag ndax bu dee alal rek dañoo judd fekk ko fi. Mm-hmm. su dee barki démb lañ lañ lañ tukki woon bay soog a ñëw. Mm-hmm. soxlawuñu alal kenn. Mm-hmm. ñoo génnoon fan yii yëpp. chaque jour ma waxoon ne leen bu fekkee alal mooy tax nit ñi di ñu di di ñu jaay leen kon mën nañ kaa téye. ñun dañuy dimbali nit ñi ngir yàlla rek. te lii ñu nekk sax yàlla day dogal léegi ñu bàyyi ko. ñun ku ñu gis ku nekk xam ne ne ñaan ñun yoruñ ñun. waaw ñun ñu ngi si leneen wàllum kort ku dikk si man boo dikkee kort ak ku la mën a kort ak lu mu a mel. dama koy dindi. dama koy dindi ba mu set am set wicc am na solo trop euh, macha allah kooku moo nekk ñang euh, mu nekk koo xam ñu bëri xam na ko bu baax baax depuis muy nekk xale ba léegi euh, fi ñuy tëjee nag waxtaan bi mooy mu tàggatoo ak jàngatam ci réew mi. waaw alhamdulilah général réew mi moom la ma soo waxoon daa si waxaat rek 2024 gii di ñëw na ñëpp jug seen bopp. Mm-hmm. gone mag ak ndaw ak ñëpp rek ku jugut sa bopp ku nekk boo si woyee fa bopp rek mën ngaa faatu. Mm-hmm. la ma gis ba tax ma wax ko man maa ko xam gone gu si jugat sa bopp 2024 boo xafee mën na laa bañ a fekk si kaw suuf li may doole nag mooy ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur gi euh, di xëccoo réew mi yal na leen yàlla defal jàmm te musal leen si cat ak làmmiñ te affaire yi jàll si jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh